أيها المستمعون الكرام نحيكم بأفضل تحية تحية مباركة من عند الله ونقول أو أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci sunub sang di seydina limaamul mahdi di ñaan yàlla na sunu borom dolli nu ko leer dolli nu sañ-sañam dolli rammoom dolli maxaamam dolli ngëneelam te taanu ci barkeem ak njaboot ga fa nekk yépp te roolaay saa nekk ca bopp njaboot ga waaye it di ziyaara ki nga xamante ni moo ko fi uutu nekkal ka fi di Chérif Abdoulahi yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak mboolem njabootu Seydina Limaamul Mahdi gi yëpp ci góor ak jigéen mag ak ndaw nu ngi leen di ziar nu ngi leen di ñaanal sunu borom mi nga xam ni moo yor taraanga yor wér yor xéewal te ku mu ko defal nga am ko yàlla leen ko defal ci seen barka maam Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam na nu ñëpp di ci jiital Muhammadul Muxtaar sunu maam Seydina ma njoon suñ ko tuddee daanaka tudd nañu njaboot gi yëpp yëpp ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di ziyaare ñëpp di ñaanal ñu feebar te yàlla teg leen feebar wi te sunu borom rek boo leen ko mën a teggil yàlla na leen ko sunu borom teggil ci barke Seydina Limaamu alayhi salaam ñaanal ñu juum te jàpp caabi féete leen ginnaaw yàlla na sunu boroom dimbali leen ba nu génn ci bërëb yooyu te bañ fa dellooti ñaanal way dawlo islaam ya nga xam ne ñu nga tëdd ca këru dëgg ga te ñàkk fayda tëralu leen fa ñun ñuy daagu ci kër goo xam ni daarun xaraabun zawalun wa zawaluha xarib naka sanga bu tedd ba waxe moom seydina limaamu alayhi salaam ni yéen a ngi daagu ci kër goo xam ne amul mujj de yéen a ngi daagu ci kër goo xam ne day jeex de kër goo xamante ni day jeex day dañ te dañam sax lu jege la parce que sanga ba waxee de ak léegi yàgg na nu war rek mooy ñu waajaat rek te xam ni lii jarut a xëccoo xeex ndax day jeex du siyaare ñëpp du siyaare waa axulaay gépp di bëggee mboolem jullit ñëpp di leen ñaanal yàlla su borom defal nu xéewal defal nu tawféex ci barka Baay Laay ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di am mbégte ak kontaan ci dellu siwaat fas yéen ànd ak yéen ci seen émission fiiri xutba yi Seydina Limaamul Mahdi yu salaam ngeen ci ànd ak oustaz maam Ndongalaay ak oustaz Mbay Baaz bu ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp nanu koy faral di defe saa su ne suñuy tàmbali sunu émission rek eh, ñu ziyaare xalifa bi fàttalikuwaat kàddoom te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon ñu daal di déglu kàddu xalifa gi Chérif Abdoulahi bu ko defee moom mi nga xamante ni saa na rek ku ne war nga ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér te njabootuk Seydina Limaamu ngi ma duy gi yëpp yàgg fi yëpp te ànd ak wér kon bu ko defee ñu daal di déglu kàddu bi. mu ne gëm yaa nga koy wër di sabaa ba ngenaa deet wax leen ci waa ji balaa siw sànku nan dem ca buur bàyyi laa nga naaw pikin dañoo jeex maam jeewoote woon saytu ko ñetti téeméer ku lem joom ngay kiraama fa buur yàlla ku lem joom li moomu yaatu taaru tabe maandu am diine am leere yaatu yaatu taaru tabe maandu am diine ami leer mano andide amilero kalando yede na ko jaayol ne conteneuris ay secret téeméeri fatiha téeméeri istighfar téeméeri salatul fatiha téeméeri la ilaha illallah sawir dawi da nga koo jaayul ne conteneuris balal sa ko ku lay siiwal wees nga puukare yow yaa jiitu woon gaa yi di waan tànnal islam. yaa jiitu woon gaa yi. yónneen bi moo jiitu woon gaa yi di waan tànnal islam. yaa jiitu woon gaa yi di waan tànnal islam. yaa jiitu woon gaa yi di waan tànnal islam. léegi naa yi tey ba nooy si xataab réew ja noonu maam. dana saf keroog alhamdulilah inay peeye nooy seqa taabale janoog maam firdaw si kontaan na ngir nun ñii bégal ñaari leer yi ngeen yoboo maare am ngeen baru fa deewaane gaani bu ngeen yoboo maare sant ngeen bu am ngeen baru fa deewaane sabxatul adyaani yéen waa kër Baay Laay kuntum nekk ngeen sabxan di njiit fi la adyaani ci yoon ya man araada taadatan man araada képp koo xam ni nam ma nga ibaadatan jaamu yàlla yaxtadoone bikum insalaaw yaxtadooni réel naray biikum ci yéen bu soobee yàlla diinoo bi salaati diine Seydina Limaamu Ja bi salaati julli ga rafet na صوم كور غرفنا سكات جا رفتنا وطهرتي وتجهالو وطهرتي نغن لا وتجالو تنغن نك اتا نبلغ الان ما يداو بابا غير ديجا اتا من لمينا يولي جلت نيا سيد الله ويدا دن سيدنا عيسى عمان قنا سيد الله سنبي سيد الله سيدنا عيسى رؤولا ابن امام الله سيد الله yi songo bi medalta wàcca nga wabayta matal nga warista donna nga abaka sobay limaamu wajufaanadimi jàng nga alquraan dagal nga bàyyi lay axlayiru ëy way iñaani taayiroo gëlëm ngeen axla yéen ñi bañ a wuñu lànk weddi taayiroo gëlëm ngeen daf ni bis bu ne nga mel ni gan ñuy teeroo ñi gam tawaalo saa ñuy waar gisuñu say naa limaamu laay de waaye yow de bis bu jot nga mel ni gan ñuy teeroo maa la wax noonu xanaa tabir ya tax nga rey ka jóom nga mu ne mayoon bindeef dajal ña doon maasam nga mayoon ñu leen di fàttali yéen a ànd ak ñun ci seen émission firi xutba yu Seydina Limaamul Mahdi yu alayhi salaam ñu àndoon seen ak yéen ci àllarba yi weesu yëpp te ñu fa yéene ànd ak ci fi nga xamante ne foofu lañ toll woon ci biir passé muy kaanat xabla xaraabiha kasiratul xalfi wa xasinatul binaai wal buyuuti wa saara ahluha amwaatan wa mutabaliyaatina déedéet ñu ngi jamoon ci waman asaa fa alayha wa man asaa fa aleyha foofu lañ yemoon léegi kon foofu la ñuy jël oustaz mbay Bass bu ko defee ñu ngi war a tàmbalee tey ci wala yu axiru wala tu axiru tawbata wala tu saw fu amal al xayri léegi foofu lañ war a tàmbale parce que ñu ngi yemoon wa man asaa fa aleyha léegi bu ko defee oustaz dama lay jox ko daal di nuyoo soo nuyoo ba pare après nga commencé waale euh, fi nga xamante ni foofu lañ yemoon ci àllarba bi ñu weesu kon bu ko defee it niñ ko waxee woon rek dañ koy waxewaat ñu ngi ànd ak yéen ci émission fii di xutbay Seydina Limaamu Mahdi yu alayhi salaam ngeen jàppe ni du ñun ñooy wax mais kenn ku ci ne nga jàppe ni sanga bi dafa mel ni sanga bi nga toogal muy wax ak yow di la digal wala di la tere kon bu ko defee oustaz kàddu ga ak ñoom bismillahi rahmani rahim auzu billahi allahuma salli wa sallim wa barik ala xabibika wa rasulika seydina muhammad wa ala alihi wa saxbihi ajmain ayuha almustamicuuna alkiram nuxayikum azka taxiyat alislaam naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh gannaaw ba nu ubbi ko ci turu yàlla di ñaan buur bu màgg bu tedd bu am kàttan bi yàlla na nu defal ubbee ak tawfiix ci jotale bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a jotale waxub seydinaa limaamul mahdi yu sang bu tedd boobu aleyhi salaatu di neen yàlla buur bu màgg bu tedd boobu mu musal ñu ci seytaane e, fa tabarakallahu di yëkki nuyoo islaam di ko jëmale ci mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi ñuy déglu e, jërëjëf oustaz Ndongo fa tabarakallahu ci sunu dars bi weesu ci xutbay sang bu tedd bi Seydina Limaamul Mahdi yu indi woon nañu ak xaw way jur ci njabootam wa tabarakallahu Seydina Limaamu soññ ci bu baax ci ku ci nekk ni nga war a jaamuloo sa njaboot yàlla ci ni nga leen war jàngatale diine ba nu xam ko ci ni nga leen war a xiirtale ci lu baax ci ni nga leen war a tege ci yoonu njub mhm. moytuloo leen yoonu safaan wa mhm. wa ilaa nag seydinaa limaamu alayhi salaatu wax na ne am na aquju bu ëllëgee njaboot gi dinañu ko sàkku ci seen diggante ak seen boroom mhm. ci jur yi nga xamante ni matalul woon ay àqam ci njabootam kon fa tabarakallahu ñu góor góorlu bu baax a baax ci njaboot gi góor góorgóorlu ci àq yooyu nga xam ni moom sang bu tedd ba Seydina Limaamu dem na ci ba ba ci e, njaay àll yi nga xam ni sax mbaa bokk xayawaanaat yi nga xam ni am nga ko ci sa biir kër mu nekk ci sa moomeel <clears throat> ni ki xar ni ki nag ni ki fas ni ki gëléem ba ci ay ginaar ak yeneen yu dul yooyu sax nee na nekk na ci moom àq bés penc kon ab jullit dafa war a moytandiku ak ndax moom sang bu tedd ba wax na ni yàlla dafa araamal tooñ ci boppam mu def ko it muy lu nu araamal ci mbindeef yi kon ñu gis ne doomu aadama yàlla daf ko bind ci matadi kon doomu aadama dafay am ay rëcc rëcc doomu aadama dafay juum fa tabaarakallaahu moo waral nag sang bu tedd ba seydinaa limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam wax ne ولا تؤخروا توبة ونكون نقبلين يخطوب كيف كو خمنتني ني نك نا سي لو خامني بروم بي غرمكو إيه، فتبارك الله نتوب جيم سي الله توب نك إيه، موي لاغا خامني يان كوي ديف مو وور لا ني لي سفانو وول اك لا بروم بي ديغلا سبحانه وتعالى إيه، فتبارك الله دافا لوب لو خامني سفانو اك بروم بي ديغلا وتعالى nga daldi ko ba rëccu la taxoon nga koy def ba noppi it fas yéene ne dootoo ko def loolu mooy tuub bi maanaa yaa ngi def lu yàlla gërëmu ko rëccul li tax nga def ko boo rëccoo li tax nga def ko it fasal yéene ne dootoo ko defati ci sa girub dund kon loolu mooy tuub Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam wax ne wala taw ba bu leen yéex tuub motax ñu gis ne istighfar gi mu ñu jox ci suñu wérd warul yam rek ci wax dafa wara bokk ci jëf tabarakallah mom sina limam mayna la occasion fa bo julé fajar te delu wat ci sa yàlla tu nga delu wat ci sa borom tu ginaaw bo jëlé sa kurus di wax astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa wala hayyul xayum kon nga gis ne saabu bu am solo ngok bo xamni mom lu sina limam jox ngir ñuy raxas fa tabarakallahu jikko yi nga xamante ni am na ayib mu ne wala tusawifu amal al xayr bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam wax ne bu leen niig niigal jëf ju baax yaa ngi bëgg def lu baax loo xam ne lu yàlla gërëm la loo xamante ni mën nga ci màng ay yiw bàyyi laay nee na bu ko niig niigal bi maana bu ko yéexee mu ne man araada minkum xayran fal yuajjiluhu qabla fawtihi képp ku namm ci yéen yiw képp ku namm ci yéen def lu baax nee na na ko gaawal balaa loola di faat ndax occasion boo nga am ngir def lu baax occasion boobu mën na la rëcc eh, moo tax fa tabarakallahu képp koo xamante ni namm na def lu baax rek naka gaawal noonu it la waxee ne wa man araada charran fal yu axiruhu mm-hmm. képp koo xamante ni nii namm na def safaan namm na def lu bon nee na na ko yéexe la allahu yatrukuhu xabla an yafalahu amaana dina ko bàyyi njëkk mu koy def kon lu baax gaaw ca def ko lu bon yéexe ko ba yërmande yàlla fekk la ca ba nga bàyyi ko kon ko tabarakallahu jàngale bu am solo la sang bu tedd bi sayyidina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam jàngale fii mu ne man araada bihi xayran amarahu bil ijtihaad fil xayr képp koo xamante ni nee na yàlla namm na ci yow yiw daf lay xiirtal ci def lu baax képp koo xam ne yàlla dafa namm ci yow mucc ëllëg yàlla daf lay xiirtal ci farlu ci def lu baax mu ne kon was wasbiroo na ngeen muñ wasaabiroo ngeen muñalante kon kooku diggante jullit ñi lay wax ni ñu war a jëflante ci seen biir mm-hmm. muñ ci mettit yi muñ ci nattu yi muñ ci ñàkk gi muñ ci lépp moom la seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam digle mu ne kon was biroo na ngeen muñ wa saabiroo it ngeen muñalante li mhm. ma ko waxee ci njalbeen yàlla dafa bind doomu aadama ci ak matadi mhm. moo tax képp koo ko sëqal rek bu mhm. wonee ak matadi doomu aadama na nga ko muñal mu ne ma raabitu te ngeen jàppoo kon bàyyi lay fii woote na jàppoo jullit ñëpp mm-hmm. woote na benn jullit ñëpp eh, fa tabaarakallaahu rawatina nag kon ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootam kon ñi nga xam ni ñoom la njaboote muy ahlullaahi mm-hmm. nga xam ni ñoom ñooy xolu àdduna mm-hmm. ñooy seetu àdduna kon fa tabaarakallaahu jàppoo dafa war ci ñoom mu ne wa taqullah na ngeen ragal yàlla laallakum amaana yéen tuflixu na ngeen texe wa tanjaw na ngeen mucc min azabillahi ci mbugalu yàlla al alim nga di aji metti al shadid nga di aji tar tabarakallahu eh, seydina limaamu alayhi salaatu jàngaleem yépp ngir mucculoo jaam yàlla yi ci mbugalu sunu borom la ni mu meloolee mbugalu sunu borom nag nee na lu metti la te it lu tar la mu ne wa uusikum maa ngi leen di diggal bi xitaanil awlaad ci xarfal gune yi kon ñu ngi ko gisee ni ñu ko xamee ci ay jàngaleem moom sidna limaamu alayhi salaatu wasalaam moom ba ngay liir la la xarfal fa tabarakallahu boo bokkee ci njabootam wal ixtiqaadil banaati azwaajan mu ne xale yu ndaw yi it muy liir yi sidna limaamu digle na ci ñu may leen buum kon foofu la gis ne it bokk na ci su moom Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam eh, xale bu góor ba nga juddoo fa tabarakallahu bés ba dellu si ñu tudd la bés ba dellu si fa tabarakallahu ñu xarfal la tax xale la ak sobe bu nga xamante ni nii mooy sobe bu ñu ko mm-hmm. bu dee jigéen it eh, ci bés ba mu lay tudd ci lañu lay may buum ñu tudd ko sëyu joyal ngir fa tabaarakallaahu sang xale bi ngir fa tabaarakallaahu ñoŋal ko ndax wax nañu leen seydina limaam alayhi salaatu wasalaam nee na dugg naa aljanna waaye gisuma fa góor gu xaraful gisuma fa jigéen ju amul buum wax nañ nit ne nee moom seydina limaamu gisuma fa it gune gu réew moo tax gis nga ni muy digle ci yar njaboot gi mu ne kon fa innal mawta ndax ni ki deekat yatlubukum da daleen di sàkku kullu xiinin ci bépp jamono mu ne wal mawtu dee it xazu kullu nafsin cëru bépp bakkan la mu ne qaala allahu taala mu ngi ñuy fàttali ay yàlla bi mu wax ne kullu nafsin bépp bakkankat zaiqatul mawt dina mos dee mu ne wal mawtu te dee it laa yaati du dikk ilaa baxtatan ndara ci mbetteel mu ñuy indil ay melo dee googu moom seydina alimaam salaatu wassalaam mu ne wal mawtu dee yaqtaul amal mooy dog mébét ya wa yuutimul awlaad mooy jirimal gune ya wa yansurul jam mooy tas mbooloo ya mu ne wal mawtu dee kaasu nadam kooku sa rëccu la kooku su la soo xamante ne ni fa tabaarakallaahu mu ne kullu nafsin bépp bakken tashrabuha dina ko dina ko naan mu ne waman sharibaha képp ku ko naan in kaana yafaalul xayr bu fekkee ni dafa nekkoon di jëf yiw yandamu dina rëccu lima lam yakun xarisan alayhi li tax nekkul woon di aji xër lool ci yiw googu nga xamante ni moom la doon jëf kon àdduna lépp loo fi def ci lu baax rek bu dee ñëwee di nga rëccu ne lu baax loolu ma doon defkat bu ma yëgoon dina ko yokk mu ne wan kaana yafalu char bu fekkoon dafa nekkoon di def safaan yandamu dina rëccu xaysu laa yanfa'uhu nadam fa nga xamante ni nii kat eh, rëccu daf fay wees fa nga xamante ni nii rëccu du fa jariñ laa yanfa'uhu du fa jariñ a nadamu rëccu ga kon nit ki bu defee safaan lu mu néew néew def loo xamante ni dafa jóg li ko sunu borom digal lu mu néew néew bu yeggee àllaaxira dina ko rëccu mu ne wal mawtu dee yu farriqu mooy tàqale baynal ahbaab yi diggantey soppe mu ne wal mawtu dee yu farriqu mooy tàqale bayna zawji diggante jëkkër wa yi ak soxnaam mu ne wal mawtu dee yu farriqu mooy tàqale baynal umm diggante ndey wa waladiha ak doomam والموت دي يفرق موي بين الحبيب ديغنت سوبي وحبيبه اك سوبن من والموت دي يفرق موي بين الحل ديغنت خريت وخليله اك خريتم من والموت دي يهدم موي مب الديار كريا ويخربها تيت مولين دي رابال من وكم بلد نياتا اي جند ومدينه اك دك wa xaryatin ak i dëkk ba tey saarat ñu mujj ak laalan di gént wa kam talalin ñaata ci ay gent kaanat ñoo nekkoon xabla xaraabiha njëkk seenu ràpp kasiratul xalqi di aji am bari mbindéef wa binaa i di am ay taax yu rafet wal buyuuti ak i kër wa saarat mu mujj ahluha ay ñoñam am waatan ñu di aji dee wa mud wa ñu di aji jóoru ñu di way mab ba ilay alayhi salaatu wax ba tey ne wazkuru na ngeen fàttaliku yow ma bés ba nga xam ni amara dina diggal allahu yàlla li asrafil ci malaakaam boogu ñuy wax asrafil an yanfuxa ci mu wal suwaruhu buftam ba mu ne fa isa nafaqahu bu ko walee laa yabqaa du des malakun malaaka wala insun wala nit walaa jinnun wala jinne wala gayruhum ak yeneen ñu dul yooyu من القلائق من دفي إلى وقام نرد الفسخ من مجئه تترى يمبا من وذلك اليوم بوب لبس دي يشيب دنا بجاو فيه تموم السبيان قني لحوله إن الرق لومغا من كون خافوا ذلك اليوم نغن رقل بوب لبس وافعلوا الخير نغن جفيو لأجله نغير موم man xadama xayran képp koo xam ni jiital na yiw jëf na yiw fii ci àdduna wajadahu dina ko fekk amaamahu ca kanamam bi maanaa ca àllaaxira naafian mu di aji jariñ lahoo di ko ñeel mu ne wa zalika al yawm bés day muy bésub taxawaay ba xaafahu ragal na ko kullu nabiyin bépp yonent wa walliyin ak bépp walliyu wa kullu aarifin billahi ak bépp aarif billah manam bépp aji xam yàlla mu ne huwal yowmu lazi mooy bés ba nga xamni tazhalu dina gërëm dina gëlëm kullu murdaatin bépp aji nàmpal ama ardaat ci lamu don nàmpal wa tad'u te dina sippi kull zaata hamlin bépp aji ëmb xam la halamu ëmboon maanaam jigéen ji nga gisoon mu ëmb la nekkoon ci biiram dina génn ngir tiit ngir lu bés booba mu ne watara naa sa sukaara bés booba de di nga gis nit ñi ñu mel ni ki màndi ni ki ñu màndi wamaahum bi sukaara fekk ñu màndi lakin waaye li fi nekk day azaaballaahi mbugalu yàlla shadidun moo tar ci moom ci ñoom kon fa tabarakallahu gis ngeen Seydina mu ni mu ñu melale bés penc ak it bés ba na mu ragloo ak it fa tabaarakallaahu li nga xam ne moo ñu war fii ci àdduna ngir bés ba lu muy raklu raklu lu muy tàng-tàng fa tabaarakallaahu ñu mën ci mucc kon waaraate gi yépp fa tabaarakallaahu loolu rek la sabab ngir rek yàlla mën ñu defal najaat ci bés boobu nga xamante ni Seydina mu melal nañu ko wax nañu fa tabaarakallaahu la fa xew wax nañu it lañu fay muccal mu ne ila moo xam leen annahu ni ki moom waajibun aji war la ala kulli cheikhin ci bépp sëriñ an na mu nekk xarisan di aji xër ala taatillahi ci topp yàlla wa rasulihi ak yonentaam fii nag ñu gis ne Seydina Limaamu cours magistral lay jox ñi nga xamante ni ñooy sëriñ si ndax moom moo ko sañ ndax moom yonentab yàlla la kon moom mooy sëriñu sëriñ si fa tabarakallahu loolu moom moo waral mu joxe cours magistral bu am solo bi wax sëriñ si seen taxawaay bi nga xamante ne nii fa tabarakallahu war nañu ko am ji seen kanamu njaboot gi nga xamante ne nii ñoo leen topp ngir ñu jëme leen ci yàlla ngir ñu leeral leen yoon wi nga xam ni moom la yàlla rëdd mu wax ne kon war na ci bépp sëriñ nga di ku aji xër ci topp yàlla ak yonentam wa yaamur mu digalit talaamiisuhu ay taalibeem an yutiicu ci ñu topp allah yàlla wa rasuluhu ak yonentam wa yuxawifuhum mu leen di ragallu azaballahi mbugalu yàlla wa yudakkiruhum mu leen di fàttali wa yuhaddiduhum mu leen di dëel wa yasjuruhum mu leen di jàjj mu ne wala tajal bu mu def chey an dara amma indahu minum min taatillahi wa rasul bu mu jël dara gën yittaloo ko taalibe ya ci lu dul topp yàlla ak yonentam kon fa tabarakallahu gis nañ ne tomb bi nga xam ne moom la ñu Seydina Limaamu indil tey tomb actualité la kon sëriñ bala war a nekk yitteem ci taalibe yi mooy topp loo leen yàlla ak yonentam mu ne wa man kaana yad'u ila allah képp ku nekk di woote jëme ci yàlla wa zaima mu njort annahu niki moom fi tarixin mustaqim ndax dafa njort rek yàlla wàccul ne kenn yaa ngi ci yoon wu njub kon la nga nekk di jaamu yàlla da nga am njort ne la ngay def lu baax la da nga am njort ne yaa ngi ci yoon wu jub kon bàyyi lay ne bu fekkee ne da nga job njort ne yaa ngi ci yoon wu njub wa yatlubu nga sàkku talamisan ay taalibe wa jaala mu def xamuhu yitteem ختام الدنيا بنيتو أدنى أو تركهم ولا مبيلين يفعلون ني جف شعواتهم سن بنخ ولم يزجرهم ولا مججلين أو وعدهم ولا مدلين من أنهم نكموم أنه نكموم ينجيهم دلين دي تخلو بغير تأت الله تي لدول توب يالله ورسوله أك ينتام من أنه كوكو دي ملني نكي أسخة رتلنا nafsuhu bakkanam fi suxtillaahi ci sànju yàlla kon ñal nañ ci yàlla musal mu ne wa addallahum mu sànk leen wa ñu sànku mu ne waxum ñooñu day yatlubuuna dinañu sàkku yowmal xiyaamati bés penc ma minhu ci ñoom minhu ci moom sëriñ ba alxaq àq ja in nag waaye bu fekkee ni dañoo réere woon kasibuhu ay fenam walakin waaye li fi nekk in lam yajalu bu fekkee ni réere wu ñu woon kasibahu ay fenam ilaa annahum dara ñoom taalibi ya ra'aw gisoon nanu xeffata diinihi ak woyofalug diineem wa taysiirihi ak jàppandal gu mu leen jàppandaloon lahum di leen ñeel maa ca la nga xam ni kaanoo nekkoon nañu alayhi ci moom minal maasiyati ci ak mooy laa yanfa'uhum du leen jariñ atalabu sàkku ga minhu ci moom shay'an dara mu nekk annahuma ñoom ñaar day dañuy mel ni ki yaa ni ñaari till xaari yaa ni yu di aji lokki kon fa tabarakallahu muy tomb boo xam ne tomb bu am solo la fa tabarakallahu damay faral di wax ne maître bi ci classe sax léeg-léeg dina ñëw laaj ko ndax respecté na programme bi muy jàngal élèves yi maître bi ci classe léeg-léeg dina ñëw xool ay résultat wam ndax résultat yi baax na nu am déet mm-hmm. kon sëriñ bi dafa mel ni rek ab maître ci kalaasam am mm-hmm. eh, fa tabarakallahu taalibe yi ñooy élèves yi mm-hmm. mu am programme bu mu leen war a jàngal nag muy programme mu yàlla muy naka la ñuy jaamoo seen boroom naka la ñuy toppe seen boroom naka la ñuy mucc ëllëg kon fa tabarakallahu maître boobu war na farlu bu baax ci ay élèves am assimilé dars yi nga xamante ni fa tabarakallahu mi ngi leen koy jox ndax bés xel set naa ñëw sunu borom laaj ko ndax matal na programme ba bel xes set naa ñëw mm-hmm. eh, sunu boroom laaj ko fa tabarakallahu ndax élèves yi assimilé nañu programme ba am déet mm-hmm. ndax respecté woon na programme ba nga xamante ni nii ma nga leen ko doon jàngal mm-hmm. eh, fa tabarakallahu kon ñu gis ne njàngale mu am solo la sang bu tedd ba seydina limaamul mahdi yu alayhi salaatu wasalaam indil e fa tabarakallahu ñu góorgóorlu ci bu baax a baax ñu ngi ñaan sunu borom mi nga xamante ne nii nag moom moo baax te am baax yàlla nu yàlla baaxal ñu ngi ñaan sunu borom mi nga xam ne moom moo baax te am baax yàlla na baaxal sunu mbir baaxal sunu àdduna e baaxal sunu alaxira wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin ok jërëjëf oustaz fa tabaarakallaahu nekk na it loo xamante ni kàddu yu am solo la wax ji leer na te it euh, ñun ñuy dégg am na ñu ci dégg-dégg tabaarakallaahu li ma tijjee rek kenn ku ci ne nga jàpp ni rek euh, dafa mel ni sanga bu teddo wi moo toog di wax ak yow ndax lii di waxu oustaz Mbaye Baaz mu ngi nii toog du waxam du sama wax man mais waxu sanga bu tedd ba la bu ko defee li ci am solo mooy lépp lu mënu ci digal rek ñu topp ca lépp loo xam ni tere nanu ko rek nu bàyyi ko kon ñu daal déglu tawxi tuuti daal dellu siwaat